wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi xurril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuy yéen ñëpp kenn ku ne turam ak santam bis bii nga xam ni nag moom lañuy defal sëriñ Touba te yonante bi waxan ni barkeb mbir yëpp mi ngi ci mujj ga kon ñi ngi fàttali ñëpp nañ dugg ci baas bi ngir taatan tuyaaba ak yiw wi nga xam ni ab yóbba lay doon ci ñun ñi nga xam ni ñoo am xemam teefu liggéey sëriñ tubaa ci xaside yi ca suba ba tey ñi ngi jàng alxuraanul karim di jàng xasida ci ay kuréel ak rajas ñu war a ñëw nag mottilee ko waxtaan waxtaan wi nag xam ngeen ni bokk na ci li nga xam ni day tax lii nga xam ni moom lañuy ñu taxawal nu mën cee jariñu loola nag niñ ko mën a jariñoo mooy ñu fas yéenee déglu sëriñ Xalil Mbàkke mii nga xam ni moo war a indil waxtaan wi xam naa ak xam xamle lay doon ci ki nga xamante ni daan na dégg sëriñ Xalil te mësu koo gis mooy sëriñ Xalil Mbàkke doomi soxna moomi Mbàkke la moom sëriñ Saaliwu waaye doomi sëriñ mu Xabsa la moom sëriñ mu daaw Mudaawa Balla euh, sëñ Xalil Mbàkke mu ngi jàng alxuraan dëkk bu ñuy wax Kër ma sayar ku ñuy wax sëñ Mbay Xari Silla wala Sill moo ko jàngal ba mokkal waaye na bi loolu amee ci dogalub suñ boroom sëriñ Saliou Mbacke da ko yëkkati joxaat ko sëriñ Mountakha Bassirou bi mu ko joxee sëriñ Mountakha Bassir mu yóbbu ko daaru bu dëkk bu ñuy wax daaru daaru Minam Saloum foofa nag nee na mu boole ko ku ñu wax sëriñ Baara Mbacke mu di ko jàngal xam-xam ba mboolem xeeti xam-xam yi nga xam ni doomi soxna war na koo xam nee na mu xam ko ginnaaw ba nag. la ko sëriñ Muntaxa delloowaat sëriñ Saaliwu nee na sëriñ Saaliwu yóbbu ko dëkkam bee ñoo Xelkom wala daaraam jee ñoo Xelkom ci daara ji ñoo daaru alimul xabiir mu defa jàngale xam ngeen ni kon loolu danañ ci dégg ni doyan na sëkk ci ni sëñ Xalil Mbàkke sëtub sëriñ Saaliwu la doyan na sëkk ci ni sëtub maam Cerno la waaye doy loolu kese da koo booleek jàng waaye boole ko ak taalibe ku ne xam na ne fànn wii nu nekk mu yoonu murit bokk na ci ñi nga xamante ni da ci yeete ci sëriñ bi ak dinu fan fi nga xam ne fi lañ war a jaar kon moom bokk na ci ñi nga xamante ni dañuy dëggal ñaan googu sëriñ Touba ñaanan muy zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyul Moustapha tajtahidu mbokk yi ni ma ko waxee léegi mboolem mbokk yëpp nañ dugg ci biir tànt bi te jox ñu àddiyey déglu ndax képp kuy wax la ko mën a jox àddiye ci moom bokk na ci déglu ko ngir man fee jariñu ana lu muy bëgg a waxtaane mooy li nga xam ne sëriñ bi da ko defan muy jumtuwaayam boo xam ni moo gën a gaaw ci defar nit sëriñ bi wax na ko ay yooni yoon mboolem secret bu nekkan ci laa la laa sëriñ bi da koo jël dëxañ ko ci biir xasida yi waaye xam ngeen ne sëriñ bi daan na wax ni mbooleem lu baax lu ne jël naa ko def ko ci xasida yi lij ma jami amaata tafarraqa la daa xatti min al xayri wa safi xaladaa xam ngeen net xasida la sëriñ bi waxan ni léeg-léeg nit dox ci digg manding ba yàgg am xelam dem ci aw bayit bayit wa dem aras siwaat faj ay aajoom loola nag moom lañ bëgg a waxtaane moom la sëriñ bi bëgg a waxtaane ba kenn ku ne ci ñun xam fam ci jaar ba jariñu loola nag kon waxtaan lay doon woo xam ni dana séddalikoo ci ay pàcc mooy dana wax ci xasida waaye dana wax ni ñuy def ba jariñu ci te duñ ci loru ndax sëriñ tubaa saa nafin bi laa dararin la mooy boroom njariñ la loo xam ne amul lor kon incha allahu taala dañ koy fas yéenee dékk rek suñu micro mu ñëw ñun ci waxtaanu am solo wi nga xam ni ginnaaw bu nu jàppee bis bi danoo gis ci loolu comme dañoo doon ay ndaw te bëgg a dem fokk nu wut koo xam ni dañuy waxtaanal ci xaside yi ngir kenn ku ne ci ñun xam fi mu ci jaar su ko defee dootu ci jaar ci ak réer waaye da ci jaar ci ak xam kon bismillah li ñuy def xaside weesuwul ñett yooyu bu ko defee wax itam xar baax yi nga xam ne des na ko seetlu ci xaside yi ngir ñi ci nab nabi di ci yëngu loolu dana ab soññ ci ñoom jeexale ko nag ñi ngi daan ñi daan jàngal sëriñ bi yëkkati ak ñi ko daan bindal ak jamono bi ñu toll nag nun ndaw ñi ñu war suñu lu war a doon suñu taxawaay ci xasida yi su fekkee xaj na waxtu yi dana ko maye tomb yooyu mooy yi ñu bëgg a waxtaane xasida mi ngi jóge ci ak jublu xasada yaqsidu xas xasdan xasida kon loolu jubluwaayu sëriñ bi lim mu bëgg a leeral ak li ko yàlla may jubluwaay boobu mooy xasida yi loolu noonu la ko sëñ Xaadima Jaxate Kala mi nga xam ne wàllu aroot ku ci yàlla may la noonu la ko leerale mu mel ni kon jublu googu suñ ko waxee léeg nga gis ku wax ay bayit te jubluwu ci woy lu mel ni alayhi salaatu wasalaam loolu duñ ko jàppe woy keroog bi ñuy tabax kaaba gi euh, baaraam bi nàcc na mu mu mel ni luy wax ak baaraam bi maa anti illaa isbuin damit wa fi sabilillahi ma laqit mu ne baaraam bi looy nàcc yow baaraam nga rek boo xam ne da nga nàcc ci yoonu yàlla kon loolu cant la waaye loolu aw bayit la boo ko peesee waaye jubluwu ci woon woy dañu wax ne woy la kon woy nag di lu fi yàgg loo xam ne lang yëpp am nañ ko muy lu am solo pour leeral gi rek ñu xam li tax sëñ bi tànn ko di ci liggéeyal yonent bi muy wolof bi tubaab bi anglais bi kum mën a doon am nga say woy yoo xam ne ca ngay ca ngay peese say wax di ci wax wax joo xam ne kii lay déglu mën na dugg ci xolom jeexital ci <clears throat> suñu xoolee làng wi ñu gën a jege fii senegal mooy wi wi ñu ëpp di jànge te mooy langue tubaab xam nañu wooy danañu ko def kar naa suñu mbokki jàngkat tubaab yi ne fii xam nañu ne baxru yi ñuy wax yëpp ñoom am nañ ko yi bari am na euh, euh, li ñuy wax riim mooy xaafiya nga dégg ñooy wax riim croisé riim embrasé noonu itam baxru yi ni la amee ay baxru turu baxru ni ko ni ñu ko amee noonu ci xasida yi ni la amee ci tubaab vers Alexandrie vers nangam nangam yooyu yëpp ñoo ñiy jàng fii xam nañ ne lu lu am la yaakaar naa ñii def ñi jàng xam nañu boo jàngee woy woy ci ci loolu li muy jeexitale du bokk ak boo ko jàngee wax wax nii rek te doonul ay woy moo ne Afrique mon Afrique Afrique des fiers guerriers dans les safanes ancestrales Afrique chante mon grand-mère au bord de son fleuve lointain muy jeexitali du bokk ak nga wax discours boo xam ne doonul ay woy kon loolu li muy wane rek mooy lu làng yépp am la wolof soo ci demee nii nga xam ne ni la amee ay buxóor sëñ bi daaj ci ni la amee ci wolof sëñ Moussa Ka def baxru yëpp li ñuy sàmmanteel ci leen ñu sàmmante ak moom mu mel ni ci lii nga xam ne moom la sëñ bi liggéey la sëñ bi muy langue arabe baxru yi fukk baxru ak juróom la waaye moom juróomi baxru wala juróom juróom-ñaar la ci la ci woy yi ci des yi ci des yëpp gisuñu lum ci woy woy na ci tawil te mooy midaad yi wala muqaddamat yooyu li ñu wax baxru tawil la woy na ci rajas te mooy lu mel ni ay tasawudu sixaar ak lu mel ni euh, téere xam-xam yi yëpp ci rajas la ko def ak nooru daare mi woy na ci xafiif inna ni usdu bil ilaahil muhin woy na ci kaamil te mooy yaay jumlatan qad sallasoo bi dalaalihim woy na ci mutaqaarab mooy ala man alayya walastu sadia waaye na ci basit rab yi bi maa yasraxul asaan fajaa yeneen yi ci des nag su fekkee way na jiit te saaroowul bañ gis ko te li ci ëpp sax day baxru yoo xam ne na nañ koy nañ ko tëggee dafa xaw a jege am po te moom waxoon na ne lam an maalam yu fi di moo tax woyul ci baxru yooyu yi ci ëpp ni naar yi baaxoo ne def itam bala ñoo woy di tudd ay gént di kañu loolu xësal ku jàng arab xam nga ko waaye moom itam lim ne lam an xumaalam yu fi di bëriwul lu ko def gisuñu lu mu xësal wala bu ko defee itam xësal ba da koy wëlbati jëme ko ci ak dëgg moo tax mu ne jaawartu rabban kariman saana li qalami bil mustafa an laxal aliya yi fa sanadi al aliya fa ñuy jàng sonraawul jaay lii xam nañ ko ñuy tudd gent yi yaa daara mayyata bil aliya yi fa sanadi mu ne moom loolu moom daal ëppale na loolu boppam yonent bi ñoŋal na xalimaam ci yu mel noonu xeeti xasida yi suñ ñëwee danañu ko fekk mu bari lool moom xasida yi bari na lool ñu di ko yéem waaye li gën a yéemu mooy barkeel gi lu mu bind kii ko jàng jariñu ci loolu de bare gi yéemu na waaye loolu moo ci gën a yéemu léeg sax ñu dégg ñuy wax ne lim bind mat na 7 tonnes 500 7 tonnes loolu tubaab yi ñoo koy wax waaye ala kulli daal bari na bari na ndax ñoom <clears throat> bi ñu jógee ci géej gi di ñibbisi dañoo peese bagage yi mu yoroon xam nga ay gaal yi dafa bari woon ay bagages yi tafsir yi téere yi addis yi loolu lépp ñu peese ko wëlbatiku euh, wax ne bi ko xoolee sept tonnes cinq la loola tax ñu jël ko jox ko lim lim taalif lépp waaye yàlla cleer àlindaan li taalif bari loolu waaye li ci yéemu mooy barkeel gi ak tege gi ci langue wi mu ko taalifee maanaam takk-takk yi ak règle yi nga xam ne moom lañ tër nga xam ne du ko wàcc benn yoon boole ko bari ak barkeel loolu lu ci kimaane wax na ne yulhimuni yulhimuni mursilu zila hayzumi fi nahwi wal arudi wal luzumi yàlla mi yónni jibril yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku su may su may tagg yonent bi mooy ki may yenkiwal di ma xamal naxwu ak aaroor ak lu zoomu maa laa yalzam ba lu mu bind dee su ci mën a def dara xasida yi nag suñ ko doon séddale manees na koo séddale ci ñetti xaaj ci bu ñu waxee ci nattukaay yi ñu doon wax léegi ci te mooy ni koy peesee am na li ñuy wax woy loolu ab pàcc la ci te mooy yooyu mooy yi nga xam ne mënees na koo daaj mooy li jàngkat yi doon daaj léegi nga xam ne dafa am ay ay daaneel am ay tënku boobu mooy cheikh mooy xasida am na bu ñuy wax sacco te mooy lu mel ni muqaddamatul kubra muqaddamatul xidma euh, yooyu yëpp li ñuy wax sacco la sajju am na lu ñuy wax wesar lu mel ne xisnu labraar ak yeneen yi demee ni noonu nga xam ne moom mënu koo daaj loolu mooy li ñuy wax nas bu ko defee euh, bu ñu wëlbati ko xoolaat ko ci wàllu li ko tax a jug dana séddal jukkuwaat ñaari xaaj am na boo xam ne xele ko tax a jóg am na boo xam ne xolo ko tax a jóg bi xel tax a jóg mooy ban mooy li nga xam ne danga war a xam li ci biir benn ñu firil la ko walla ñu daal noo ko mën a xame moom dafa sàkku nga xam ko loolu mooy lu mel ni téere xam-xam yi mu taalif tasawuf si xaar jawar nafis nax ju ak leetar yi daan tont ñu ko daan laaj yu mel noonu nga xam ne boo demee bari na lool ci mbind bi oh. lu mel ne silkul jawaahir yooyu yëpp ay kii yoo xam ne moom des koy jàng di xam li ci biir bokkul ak li nga xam ne dañ koy durus moo tax néew na ngay gis kuy daaj toujours saxaat di ko yëkkati wala joxor na fiis ndax loolu loo war a jàng xam ko ci sa xel la donte nag bu duggee ci sa xel sa xol la jëm ñaareelu pàcc bi nag moom ci xol la jëm direct mooy yi ngeen doon jàng léegi nga xam ne ay danañ ko leeral léegi ci kanam julli ci yonante bi tàgg yonante bi euh, istixfaar yooyu mën ngaa bañ a xam li ci biir mën ngaa bañ a xam li muy tekki moom da koy jàng rek muy jeexital ci sa xol suñu ko xoolaatee mënees na koo séddalewaat ci beneen anam ñetti xaaj séddale boobu nag moom moo ko defal bokk mooy li mu def ci biir géej gi uh-huh. ak li mu def laataa muy dem ci géej gi uh-huh. ak li mu def ci ginnaaw géej gi uh-huh. bu njëkk bi mooy laataa muy dem ci géej gi moo waxal boppam ne am amma ma qablaha min al makatibi falam yuqbal dem ci géej gi nee na loolu ci dara ci biir géej gi mu waxal boppam ne wa ma jamia wa fi l xaybati l bahriyati xidmatun li rasul sallallahu wa sallam wa zikrun wa jihaadun la xayru li zalika manaatu min naqliya wa satartuha nee na li ci biir géej bi diggam ak boromam la nee na liggéeyal yonente bi ak zikar ak jihaad rekk mooy yi nga xam ne moom la làmboo nee na moo tax loolu ma tere ñu copier ko wala ñu koy tasaare ma denc ko ndax sama diggante ak sama borom bi ko ñetteel ci lay wax ne wa man araada an yantafia fi dunya wal axirati fal yajtahid fi ma katabtu baqiyatu muqti ama shahidna bi karamin fa tilka al makatibu faaqat gayra al qurani wal hadis qatan wa laha fi mu ne li ma taalif ci ginnaaw géej gi moom ku bëgg njariñul àdduna ak àllaaxira na farlu ci di jàng yooyu mooy li tàmbalee ama shahina bi karamin mooy ñaari ati gànnaar yu jëkk nee na taalif yooyu li tàmbalee foofu ba ni mu fi ni mu boromam nee na li mu fi taalif kawe na lu dul alquran ak ak xadis hmm. nee na am na barke bu ci nekk boo xam ne nekkul ci yeneen taalif moo tax kon ku bëgg njëriñul àdduna ak alaaxira mu ne kon na dem ci yooyu xaj bi ma wax léegi te mooy ginnaaw géej gi ni nga koy xàmmee am na lu ñuy wax luzumu maa laa yalzam te mooy bu daaneelee bayit wi bayit wu ko jiitu euh, euh, ki araf wi mu daaneelee bayit wi araf wi ko jiitu boo xoolee mooy nuroo hmm. loolu ñi bëgg a xàmmee li mu def ginnaaw géej gi des na ko xàmmee ci noonu xam nga boo ne wajjahtu wajhiya bi hamdin wa shukur ilaa walil ne woo shakur xam nga kóor bi ci desit kóor nga wax nga xam ne waaw ak raa gi kaaf gi dolli ko war na ci nga xam ne bii ni mu daanoo bii li ci ëpp boo wàññee ñaari alaf wala ñetti araf ñooy bokk ni ñu daanoo ñaari xàpp yi loolu mën sax ñu xam ne des na ko xàmmee itam ci leneen bu ne xaddiim baatub xaddiim li ci ëpp yi ci ginnaaw géej gi lay lay doon léeg-léeg it cant yu bari yi nga xam ne da koy def yàlla ak di wax li ko yàlla defal loolu yi li ci ëpp ci xaside yi soo ko seetloo ginnaaw géej gi lay doon mm-hmm. yooyu nag sëriñ Modou Diagne mi nekkoon daari kaamil radiyallahu anhu mm-hmm. liggéey na ci liggéey bu rëy ci dajale ko muy diwaan yooyu nga xam ne eh, Talla jaañ ñu koy mool di ko ci saan yi nag léeg-léeg dafay wuute dañuy wuute ci seen biir ñoom xaside yi li leen di wuutale euh, danañ ci ñëw ci kanam waaye daal léeg-léeg nga gis xaside bu gudd léeg-léeg nga gis bu gàtt xaside bu gudd lu mel ne nooru daara yi ak Fatimul Bichri bu mag bi nga xam ne junni bayit ak nangam dana ko mat léeg-léeg nga gis xaside koo xam ne juróom-ñaari bayit léeg-léeg fukki bayit mel ni ajaaba ni xayru baaxi waaye jeexital bi takkuwul ci guddaayu xasida bi ak gàttaay bi waaye dafay takku ci jamono bi ku sëñ bi defee ci la jeexital bi di takku moo tax léeg-léeg nga gis xasida gu gàtt mu wax ci loo xam ne wax ko ci gu gudd lu mel ni saana ilaahi bil munaat jihaat yi mu wax ne taxaw na taxawaayu mbooleem xare yu yoo xam ne yonent bi ko xare saana ilaahi bil mun a jaati boobu tax na taxawaayu xare yooyu na ci xasida loolu moo tax euh, mujj gi maanaam yi mujj a def jeexital bi li jëpp foofu lay rawante ndax suñu xoolee wàllu technologie ci jamono ji ñu toll bu dee appareil téléphone yi marque yi mujj génn boo xoolee mooy gën a mooy gën a mooy gën a kii yu jiitu mm-hmm. mbirum sëñ bi noonu la demee lu mujj rek mooy gën a ci la ko jiitu waaw loolu moo tax ginnaaw géej gi lum ci def yëmul ak lenn loo xam ne def na ko lu jiitu géej gi moo tax sax bi mu ñëwee ñaari pàcc yooyu ma wax muy xasida yi ak téere yi xam-xam yi bu ci nekk da ko woyaat bare bare daf ko woyaat muy mawaahibu muqaddamaat jës bu téere yi xam-xam yi itam gis nga Munawwirus Sudûr moom la woyaat pour mu taxaw taxawaayu mu lay nu sudóor yooyu yëpp di wane rek kon bi mu ñëwee am na kii bu mu indaaliwaat boo xam ne tax na li mu defoon lépp mu beesalaat ko ngir xam na doole ji nga xam ne mooy nekk ci biir am na ci yoo xam ne nag julli ci yonante bi moo ko tax a jóg lu mel ne mafaatihul bichri ak nooru daarayni am na ci yoo xam ne jéggulu boroom moo ko tax a jóg lu mel ne taxmiis ak tawbatu nasuux ñaar la bu bu mag bi ak bu ndaw bi yooyu yëpp looloo ko tax a jóg am na ci yoo xam ne nett li jaar jaar yi yonent bi moo ko tax a jóg lu mel ni bu Naafi ak Jasbul Xuluub ak Raaya nga xam ne da koy boole di julli ci biir ci biir loolu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ci yoo xam ne ñaana ko lu mel ni tax xatul mutadarriin ak Matlabul Fawzayni am na ci yoo xam ne sant yàlla ak wax li ko yàlla may ci ay xéewal moo ko tax a jóg lu mel ni Minanul Baaxil Xadiim ak ataaba lil mamarkal awtaaya am na ci yoo xam ne tàgg yonent bi moo ko tax a jóg lu mel ni muqaddamatul amdaa ak yu mel noonu am na ci yoo xam ne laabiire nit ñi moo ko tax a jóg lu mel ni leetar yi mu daan bind ak ndénkaan yi nga xam ne boo demee ci xekmatu boobu Sëriñ Abdul Ahad mool nga xam ne yenn yi ay naaru gànnaar la koy dénk yenn yi mag ñu njëkk ñaandoon ak moom eh, nasiha laabiire moo ko tax a jóg daani ilal xatti nasihatu lil wara li wajhi lazi li qaada ajran wa asafa am na ci yoo xam ne nettali bi mu nekkee ci géej gi la mu daan jànkonteel ak li ko yàlla may ci diir boobu moo ko tax a jóg nga xam ne parcours géej gi fi mu jaar yépp daf ko daf ko ci wax lu mel ni sa ko yeesa min ni laa ànd jeewali loolu jaar-jaar yi liggéey bi mu doon liggéey yonent bi ci biir géej gi li ci ëpp moo ko tax a jóg am na ci yoo xam ne julli ci yonent bi rek moo ko tax a jóg mel ni muxaddamatul xidma ak muxaddamatul kubra ak nooru daara yi am na ci yoo xam ne bu ko defee loolu mujj na mu seddale ko ci at mi juróom benn weer yi mu di ko tagg yonent bi juróom benn weer yi muy julli ci moom tax euh, li tàmbalee rajab ba tamxarit mu di ko tagg yonent bi li tàmbalee tamxarit ba rajab ñëwaat mu di ko julli ci yonent bi li xat misil xijjati min shahri rajab wax ne li xatmi zil xijjati min chahri rajab min nii salaati ala manin tujib kon noonu la séddalee tagg yonent bi ak julli ci yonent bi mbooleem loo xam ne turi yàlla la nag dajale na ko ci biir xasida yi wax nga ko léegi liñ ma jamia ma tafarraqa la daa xatti min al wa safil xalada mbooleem lii aw yiw te taqali ko woon ci téere yi mag ñi njëkk ñi ak ñu baax ñi booleel lépp defal ma ko ci sama xasida yi moo tax kuy jàng xasida mbooleem lay xeetu jaamu yàlla yi ñuy wax ci làmmeñ yaa ngi koy def yaa ngi julli ci yonent bi yaa ngi jéggulu ndax yooyu yëpp fekk na dëxëñ na ko ci biir mujj na sax bu ci nekk ñu wutal ko ab diwaanu boppam gis nga diwaan boo xam ne alxuraan yi ñu tënki alxuraan la ak yoo xam ne yi ñuy tënki salaatu ala nabi la ak yi ñuy wax fulkul am na téere yoo xam ne suñ son bi moo ko yi woon ñu mën ko am na yoo xam ne suñ saalihu moo ko dajale woon ñu tudde ko sas wi téere yu bari ci ñu jàng nii mi ngi ci biir kon daal yu baree bari la xeeti diwaan yoo xam ne itam def nañ ci ay ak ràññetle ci yi ci ginnaaw géej gi ak yi ñu tënki ramadan yi ñu tënki gàmm nga xam ne bu ci nekk ku ko soxla Euh, jëfandikoo ko ak jot ca day yomb ci yow ñu ñëw ci nit ñi durusi xasida kii durus xasida li mu war a njëkk a def mooy araf yi nga xam ne ci la sëñ bi taalifee te mooy araf yi araf yi araf yi arab yi muy ijji nga fexe ba xereñe ko bu baax ba mu wóor na ne li ngay jàng ni nga koy jàng ni la ko sëñ bi bind fer ijji bu wér wér ba mu ba mu leer bi ko ñaareel mooy nga tànn téere yi nga xam ne moom ngay jànge moo doon téere yu topp ba mu set mu wóor la ne li ngay jàng nii amul benn yàq boo xam ne mi ngi ci biir loolu lu am solo la fexe ba laab ci anam yi nga xam ne moom lay war a laabe ci fi ngay toog laab li ngay sol laab barab bi nga nekk laab nga jublu xibla soo ko mënee loolu noonu la ko sëñ bi jàngalee ci Masaalikul Jinaan ci kuy tudd yàlla te kuy tudd yàlla mooy ku jàng xasida wax na ca teggin ya ne wa xudda min aadaabi zikri zakiri juloosu euh, abdin fi makaanin taahiri mu toog ci barabu laab mustaqbilal qiblati za tarabbuin aw mutawarrikan kaman salla faan mu jublu xibla toog banque tànk yi wala mu ferankalaayu sax su ko manee wala mu toog comme buy julli di taale ni muy toogee bu ci nekk baax na bu amee parfum bu baax bu xet ga neex mu laal ko ndax nee kii sikkat wala ki jàng xasida malaaka yi dañuy nekk ci wetam moo tax kon ak jinne yi nga xam ne ay jullit lañ wala yi nga xam ne ay murit lañ yooyu yëpp mu di ko bàyyi xel te wodd ixlaasil fata ixlaasil fata bi tasfiya azkaarihi min kulli shawbin fatari su ko defee li ngay jàng nga fexe ba lenn jaxas bañ cee am ci di jàng di tudd leneen lu bokkut ak li di jaxas de su ko defee mu yéene li nga xam ne moom la am ci ittey addunaam wala ittey ëllëgam incha allah sa sa yee jiitu ko bu ko yéenee dana ko am noonu la ko sëñ waxee in mi maa kuntu baada xuruuji min jolof wax na ci wërd wërdu maxfuus xam ne bi muy leeral lii la ko leeralaale nee na yow kiy jàng na yéene li mu bëgg àdduna ak alaxira bu dee xasida bu dee wërdu maxfuus na yéene yàlla jariñ ko ci àdduna ak alaaxira bu ko defee jegeel ko yàlla ak yónnente bi jege koo xam ne da koy jariñ te du ko lor mu ne bu dee ay naafile yi ñuy def ci ginnaaw julli wala njëkk julli na ci yéene dundal sunna su yónnente bi alayhi salaatu wasalaam jàng saat yu mën a jàng ci saat yu gàtt loolu bi muy leeral kiy jàng xasida la ciy leeralaal loolu kon moo tax baax nañu ñu waxaale ko su ko defee yow miy durus nga fexe ba tànn xasida yoo xam ne danga ko mën a saxal ndax jëf yépp bi ci gën mooy boo xam ne du du jën du jënal bis bu set nga mën ko def moo tax sëñ bi ne wala si wala zimo tawasutan fil amali yaatikumul mughni bi ajri amali ni ngeen xool loo xam ne mën ngeen ko attan te te tim diggu doomu ci yéen ngeen yanu ko bu ko defee tiyaaba ji dana leen dikkal nga bañ a ëppal lool bañ a sàggan lool xanaa nekk ci digg bi loolu kat mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi daan digle jamono jamono bu nekk ndax soo ëppalee mën ngaa fiir ki ci sa kanam soo dawee ndànk ki ci sa ginnaaw mën na laa fiir daañu ko misaal ba tey ci autoroute boo dawee lu ëpp mbëkk ki ci sa kanam boo dawee tuuti ki ci sa ginaaw mbëkk la mhm. loolu misaal yu bare bare bari indi na ko ci ñooñu ñëwoon ci yonente bi nga xam ne dañ daan naafila guddi ak bëccëg saxaw woor ba mujj ñu xeeb li yonent bi doon def di wane ne moom li ko yàlla may ba nag noonu ñoo ko ëpp lu ñuy la ñoo ko ëpp lu ñuy woor mu xamal leen ne leen li ma nekk mooy li li li ñu war a ne ci nekkul nekkoo ci dara moo tax kon nekk yanu loo xam ne rek mën nga ko àttan dafa am solo ci mbir mu mën a doon loolu nit durus xasida yi xam nañ ko am na noo xam ne soo ko ni jàngee man ngaa dem ba euh, maanaam moo jéggi dayoo am na koo xam ne ñuy wax ne Sëriñ Abdou Lahad daf ko joxoon muxaddamatul xidma muy def bis bu set mu jàng ko fukki yoon ba mujj mu ñëw sëñ bi maay sa sëriñ ñëwal jëpp lu ci man <laughs> xam nga loolu ëpp la dem na ba kon kon yaa ngi fiir ki ci sa kanam booy daw lu ëpp da fiir ki ci sa kanam sëñ bi ci kanamam dem na ko ba ne na ñëw jébbalu maay wasilaam waaye bi sëñ bi boo faj ko ba mu tane sëñ bi def ko ne kaf ceeru café de bu ñu la ko joxee waxuñu nga naan lépp bu ñu bëgg nga xel lu toll la nga ca mën a naan naan ko xasida yi noonu la demee mëneesul mëneesul yam lépp li ci àttan nga yàlla ngay ngay jël rek ndax boobu teraanga la su ko defee bu tënkoo ci ni ma ko waxee ci ak laab ak lam mën naa dem ba di gis yu yu biire loolu ñu koy jàng xam nañ ko di am kasu di gis yi ñëwagul loo gént boo xëyee mel ni na ko génte woon nga koy gisa gis yoo xam ne bokkul ak yi nit ñuy gis waaye yooyu yëpp bu la yàlla dimbalee da ngay xam ne da ne ci kaw yoon wi kaw yoon boo ci nekkee tableau yi nga xam ne mooy indiqué di la woon dëkk ba nga jëm li nga nekk ci kaw yoon wi moo tax mooy panneau signalisation yi ñii ne ci kaw yoon wi ñoo koy gis moo tax kon faaw ngay gis yu mel noonu waaye nag bu mu tax nga jàpp ne àgg nga ci dëkk ba léeg-léeg sax boo àggee ci dëkk ba doo gisat yooyu su ko defee nga ma ko xelee léegi dog dog bi nga jël nga saxal ko te jàpp ne benn pàcc ci li sëñ bi bind nga jël keneen ku jëlaat leneen itam nga xam ne ma nga ci loola bul yéem bul yéem li ngay li ngay jàng waaye bul xeeb lu keneen di jàng su ko defee alxuraan nga di ko jàng bala ngaa jàng xasida bañ koo neenal bu ko defee Euh, li ngay jàng it nga fexe ba di ko di ko suturaal di ko nëbb ndax sëñ bi wax na ci masaalikul jinaan ne li ëpp ci li ngay def ci lu baax su ko nit ñi dee xam tiyaa ba ja day wàññi xam nga sa conte bancaire la ca nekk doo ko wax kenn doo ko kenn du ko xam te loola alal ju nekk ci sa xol nga fonk moto moo tax lii nga xam ne moom ngay denc pour ëllëg na nga xam ne ëllëg moom képp ngay jariñoo moo gën a mat denc ko mat a gën a ñoom bu ko bàyyi xel bu baax euh, bu ko defee itam ndaw li tollu ci jàng xasida di di durus mu boole kook li mu war a jàng ci xam-xam mu mu jàng ko bu doo toll ci jàng alxuraan mu ne ci daara ji jàng bu dee ko toll ci liggéey mu góor góorgóorlu ci liggéey bi te bañ a neenal dara ci yooyu ndax mag ñi noonu la ñu nekkee woon ñoo ñoo ñoo dàqoon durus ñëpp waaye teewul kenn ku nekk yaa ngi ci sey tool di bay li nga war a jàng jàng ko xam ko ci alxuraan ñi ay kaang lañ ñi ay fóori lañ te ñoom ñooy suñuy royukaay kon moo tax lu ñu xir xir xir rek teewul yooyu nañuy fexe ba di ko jàng ndax sëñ bi ni mu jàngaloo xasida yi ni la jàngaloo xam-xam waaw ndax ñaari yëpp bu ci nekk mi ngi mi ngi mi ngi te xasida lañ la di wooyee boo demee xel koom sëñ bi amoon ni mu amee sasu xasida ni la amee sasu xam-xam nga xam ne lu ci waaye euh, sàggan sàggan mokkal nga sasu xasida wi mokkal nga jàng itam tëral lu nga itam lii nga xam ne mooy sasu xam-xam wi te mooy téere yi nga xam ne moom la bi bind ci xam-xam kon loolu itam ndaw ñi di ko bàyyi xel bu baax a baax bu ko defee loolu di lu am solo ndax loolu bu ñu xoolee mbindum sëñ bi li ci dégg muy wax ne lii maa ngi koy def muy leeru ki jàng ki ki xam kon bàyyi na xel loolu loolu bu kullumaa lii yëntami